ci euh, waxu yeewi askan bi ne ñu ne bi yaa ko disloqué ñu ne yow yaa disloqué yeewi askan bi vous avez fait imploser le bloc. je n'ai pas fait ça. ensuite li ngay liggéeyal du en réalité ce n'est pas Khalifa Sall qui vous intéresse vous travaillez pour votre candidature en deux mille vingt neuf parce que Khalifa Sall bu demee deux mille vingt quatre jàllul dootul mën a dem parce que il sera atteint par le plafond de l'âge ba may wax Khalifa Sall. mooy suma candidat wante su ko yàlla mayulee aafiya mu mën a bokk ci élection yi diw laay jàppale jamono boobu diw boobu amuloon benn dossier pendant na ma justice est-ce que nga may dégg man du ma naafeq moi je la politique avec le cœur mais biralaat wax ci làbbee yi ñoo may yar dafa am solo lu may wax fa laa jëm ci wax ci maintenant j'ai parlé de 2024 je vous ai dit pourquoi j'ai été exclu du PS l'ambition est le moteur de la vie j'ai toujours à la différence des autres j'ai toujours seulement soutenu une personne suñu génne ci 2024 lu yàlla di dogal je vais apprécier avec mes amis mes militants mes sympathisants mais je vais aussi apprécier avec la famille socialiste et je vous le dis je vous Donc, le répète je le dis sur ce plateau nous sommes des socialistes nous ne renoncerons jamais, jamais, jamais à la conquête du pouvoir. Jamais. Donc, jamais. donc excluro nga conduire la famille socialiste pour la présidentielle. may mun a xam nga ñun xeebuñu kenn ba ñu yàlla di may tur ci dëkk bi ak ay ndombal tànk ñuy bëri yi xataraayu fii kenn kenn musuloon dégg seen tur respectez-nous pour ce que nous sommes. et respectez-nous pour ce que nous avons enduré. dafa am aussi beneen enjeu non s'il vous plaît Maïmouna même pare parce que Maïmouna xam naa ni fu a nekk nii xam nga yow suma sër nga xam nga su ma nekkoon ci yeneen plateau yi heure yi xool gars yi la rus mais Maïmouna. <laughs> yow sama gars nga. non yow tu moo tax ma Maïmouna damay bañ gars yi këpp yalwaan gi moo tax may jéem a xool nu may gérer yalwaan gi parce que nee naa la goro di béy. baabul di ko dundee dafa loolu dafa loolu neexul ci xol xam nga ko mosul dund loolu mooy mooy mooy fooye xelam nee dama ànd ak Tanor ak président Niass suñu déggoo woon tey ah moo ko grand tey mooy tooga mais beneen enjeu nag xam nga parce que on avait fait tout le travail on avait enduré tout ce qu'il y avait à endurer un outsider est venu prendre parce que le peuple sénégalais considérait qu'on devait être assez responsable et assez mature pour ne pas nous donner en spectacle tey si le peuple sénégalais arrive à la conclusion que nous ne sommes pas assez responsables et matures ne soyez pas surpris nous ne sommes pas les seuls composantes du peuple sénégalais